fii ci hadis boo xam ne yar wii dana ko nettali moom yonent bi an rabbihi mu jógee ci boromam azzanan na wajalla ta màgg na hadis bi yonentu mu ngi ko jëlee ci yàlla kon hadis qudsi la hadis qudsi nag bokkut ak alquran ndax yàlla ko wàccee ci yonent bi noonu ba deeg maanaa bi sax jibril dafay jàng rek mu jàng ko te hadis qudsi maanaa bi rek mu wàcc ci bi ba di yonentoo koy ràbbal boppam alquran xaraf woo jàng am tiyaaba balu ko ëpp ndax dañuy jàmm yàlla ci jàng ko ay ma hadisu qudsi moom jàng xaraf rek du laa tiyaaba bokkul ak alquran mën nga koo julle hadisu mën mënoo koo julle àndoon na ko moom yàlla yàlla wax na yàlla moo waxal su boppam ne yaa ibaadi yéen samay jaam xam nga nag sangam kon kenn tëwul yàlla bu yàlla waxee yéen samay jaam na ñëpp déglu parce que ñëpp ci lañ bokk ku dégluwut tey it ko rëccu da ko rëccu ndax kenn ñemul yàlla ku la wax ne dafa ñeme yàlla dafay wax rek ñemul yàlla lu màgg màgg màgg màgg lu yàlla parce que màggaayam ak rëyam yàllaa ko def ci moom dégg ku ñemewul ab gaynde نيمو سفرة نيمو مرات فيبر نو نيمو يالا دمي وحرك نيمو يالا يالا كن نيمو كن نيمو جاكار لو غور أم بغرم وتهمني لو ترى الذين أن القوة لله جميعا وأن لا شديد العذاب من يال يرنتي بنا يالا يالا وحي يرنتي بنا سون كرك بطوان كريك jakar lo jàkkaarloog mbugalam yalla koron nga gis mbir mu mag waye waaye keroog da nga xam ne katan katnu yalla rek la ndax mboolem ñu mbëru ñi nga xam ño fi jitu won mbolo ci àdduna te wuñ mbolo mi ci dëgg keroog yawmal xiyaamati ñom ñep dinañ jébul nga gis ñom ak lottu ak ak soufé go xam ni hein da nga nan xanaa du kii mooy kilifa gu mag gogu ñu doon wax ci aduna motam mag moy mag fa yalla nit dana nekk ku foor ci àdduna te bu demee fa yàlla du peese da tool ni mbagg yoo yàlla faalewu ko yàlla na yàlla musal ci ñooñu ak jokkoog ñooñu su ko defee nag buur na yéen samay jaam yaa ngi baa di yéen samay jaam ñëpp déglu mu ne nag man xaramtu xaraamal naa azul ma tooñ ala nafsi ci sama bopp yàlla nee na dama xaraamal tooñ sama bopp allahu akbar yàlla dara xaraamul ci moom lu ko neex mu def waaye du tooñ du tooñ te pourtant moom mënu tooñ de waaye dafa am jël ne moom du ko def rek ndax loolu pour moom tooñ la mais yàlla mënu tooñ sax parce que tooñ mooy nga soppandiku ci moomeelu jàmbur yàlla nag moom moom lépp dégg waaye nag du mbugal kenn te kooku mooyut yàlla du sooñ du ñëw rek soppandiku ci jaam bi mbugal ko te jaam bi deful luñ ko war a mbugalee yàlla du def loolu wax na ko ci alquran ne wa ma ana bi zallaami lil abid man duma tooñ ñeel jaam bi jaam xam nga jaam yi dañoo bëri yàlla bu fekkoon ne jaam bu nekk tooñ na benn tooñ rek kon tooñ na tooñ yu bëri moo tax ma ana bi zallaamin nekkuma di tooñ tooñ yu bëri maanaam du ma tooñ jaam yi rek la bëgg wax wax na yàlla inna laa laa yazlimu annaasa yàlla du tooñ nit ñi dara loolu yàlla wax kon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jàngal nañu ne yàlla si boppam nee na du tooñ moo tax boo góorgóorloo rek di xaritu yàlla ndax yàlla du yàq sa jëf dégg def naa tooñ baynakum seen diggante muharraman muy lu xaraam yàlla daf ko njëkk aaya boppam ba pare doon ñu ko aaya loo xam ne yàlla sax da koo yow yow lu tee nga ko yow jaamu yàlla bi nee na tooñ dama ko def muy lu xaraam seen diggante fala tazalamu bu leen tooñante falaa tuzaalamu bu leen tooñante yéen samay jaam xaraamal naa tooñ ci sama bopp ba pare xaraamal ko seen biir bu leen tooñante ndeysaan kon yonent dafa xaraamal tooñ si dafa diggante da ko bañ nag ba moom du ko def mu ne kon bu ko def yonent bi jàngal nañu ci hadis mu ne seen deret ak seeni alal ak seeni der dafa xaraam maanaam jullit amul duraat di tuur deretu mbokkam julitam moo xam da ko rey wala da ko gaañ rek yëpp xaraam na rek julit amul duraa di jël alalu mbokkam julitam ci caaxaan moo xam da ko ëpp doole jël ko yóbbu ko tribunal gañe ko ndax moo ko ëpp doole ëpp ko gën koo gudd loxo wala boog mu da ëpp ko dooleeg dégg nga nangu alalam force te mun sax mun ñoo sax dem tribunal ndax waa ji néew na doole hmm. wala boog mu nax ko wax ko wax ju neex ak lu mu mën a defee rek ba jël alalam te waa ji kat bu xamoon ne bu xamoon li ci biir du ko nangu wala mu agressé ko jël alalam lu mën a xew daal julit bu lekkee alalu mbokkam julitam te bu mbokkam julitam bi xamoon ni lii la du ko ko jox hmm. xaraam la ak nu koo ko mën lekk jullit xaraam na muy jëw mbokkam jullitam di wax ci deram lu ñaaw bu ñuy wax ci sa mbokkam jullit lu ñaaw sax yow wax waxal ci moom lu baax yow su ko defee toon défendre gi nga ko défendre googu noonu la yàlla musalee safara loolu la yonent wax ko défendre sa deru mbokk yàlla musalee safara mm-hmm. waaye jëw baaxut jëw baaxut ni jëw xaraamee noonu la déglu jëw xaraamee booy déglu ñuy jëw sa mbokk nga toog di déglu yow yaa ngi moom yëpp yéen a ay jëw kan ngeen yéen koy tooñ hmm? boo defee jëw mooy wax loo xam ni lu ñaaw la sa mbokkam jullit gannaaw ga di la dégg la di la dégg la maanaam lislaam daf ñoo noppiloo ci ayibu jàmbur yi top ci gannaaw ni rek naan lii la def ak naa la def ak fii la nangam ak loolu lu ci sa yoon moom yàlla moom yàlla la am ak affaire ba koog yàlla yàlla dana ko réglé waaye yow fexeel nga réglé say ay bu bopp yonentu nee na bis dana ñëw ngeen dajeeg seen borom te lépp lu ngeen def danañ leen ko laaj kon su ngeen toojantee dañ leen ko dañ leen ko laaj dégg nga yàlla moo njëkk bàyyi tooñ ndax moom buur bu màndu la te soxlawut kenn moo moom lépp di ko def fu ko neex di jox lu ko di ku ko neex dégg nga kooku mënul tooñ kum xañit tooñut la moom borom bi subhanahu wa taala ndax yàlla moom sax baax na baax goo xam ne bu la xañee dara rek dafa gënul ci yow comme waajur wuy xañ doomam dégg nga bëgg a laal xalu safara xale dana bëgg a laal safara do waajur wi téye ko lu tax mu téye ko ndax xam na ne bu ko laalee am problème noonu la yàlla mel ak jaam yi kon moom du tooñ kenn lu mu def rek loolu gën ci jaam yi yàlla def rek loolu mooy li gën ci jaam yi jafe-jafe daal amul lu mooy ci jaam ñàkk nangu ndogalu yàlla loolu foofu foofu la foofu la problème ba nekk. yàlla dogal nga ne bëggoo te yow xamoo yàllaa xam hmm, loolu nag mooy problème loolu mooy musiba waaye nag lépp lu yàlla def boo ko nangoo rek dangay gis ne loolu moo gën ci yow hmm. docteur léeg-léeg dana xotti yaramu ki xanaa xotti yaram kay euh, na hmm. mais waa do malade bi xam na ne xotti yaramam bi mooy jàmmam moo tax du tawat du mele docteur bi yàlla nag lu mu def ci jaam bi rek loolu moo gën ci moom du du tooñ bu jaam bi duggee safara rek yàlla dafa def mu bañ wala yàlla santaane mu bañ waaye boo toppee li yàlla tëralee loolu li yàlla tëralee rek mooy njub pour yow mooy mooy mbégte pour yow mooy bànneex pour yow hmm. boo xamoon li ci biir loolu ngay tànn doo tànn leneen du loolu yàlla def su ko defee moom du tooñ bokk na ci maandoom moom yàlla gannaaw moo waxee ne maandoom bokk na ci mooy lu mu def moo gën maa faalawul jalilu fa wal jamil yàlla mu màgg mi lu mu def loolay di taaru te loolay jàmm pour boo amee musiba rek da ngaa loolu yàlla tëral loolu maandoom ci la bokk maandu mooy nga teg lu nekk palaasam yàlla lu nekk teg na ko palaasam ku nekk xawal na la yoonu xewal bàyyi nga bàyyi lam rëdd rek ci chériatoom rek moo la andil musiba kon yow kon yaa tooñ sa bopp hmm? <clears throat> ñaareel bi mooy yàlla du jàppee kenn bakkaaru kenn loolu mooy maandu piir ak bañ a tooñ la taziru waaziratun wizra uxra yàlla nee na kenn du yenu bakkaaru kenn kenn du yenu bàkkaaru kenn loolu loolu mooy maandu dëgg ndax bu ko neexoon diw def bakkaaru pare mu fay ko keneen léegi-léegi mu am ci nit ñi léegi-léegi mu am ci nit ñi ah am na ci ñoo xam ni sax tey buur yoo xam ne nii dañu may yenn kilifa yi ñu lakk courant bu bari ñu dem jël ko ci baadoole tooñ tooñ nañ de hmm? waaw baadoole yi liggéey ba ñàkk tooy xep ñu jël alal ji dem jox ko ñoo xam ni defuñ dara hmm? su ko defee takkalaat yooyu nit ñi def suñ biir ñun kii moo ma neex rek du ma ko def dara mbir mi xaaral ma jiñ ko kële dal ci kawam yàqal ko te defut dara loolu yàlla du ko def parce que buur bu màndu la te daf ko xaraamal suñ biir it nattu gi muy nattu jaami nag du tooñ wax naa la nattu jaamu xewal la yàlla kenn du ko tuumaal ndax moom du tooñ natt yi muy nattu jaami xewal la bu ko jaami xamoon loolu rek la ñuy tànn wa docteur dana aaye malaat ne ko bul lekk lekk sàngam te pourtant malaat bi bëgg na lekk góog lool lan la docteur bi xam bu ko lekkee daf koy lor mu aaye ko kooku lan la ko aaye lu koy lor lu koy jëriñ lu koy lor noonu la yàlla mel nag amul lu mu lay aaye lu mooy lu lay lor la mbooleem lu yàlla ne xaraamal naa ko xamal ne seytaane moo ko taaral sa bët waaye rafetul hmm. comme ñam wuñ tookee rek. boo ko lekkee rek am problème mboolem lu yàlla aaye nag noonu la mel mboolem lu borom bi subhanahu wa taala aaye noonu la mel boole ko basman mboolem lu borom bi subhanahu wa taala aaye dafa mel ni ñam wuñ tooke amul njariñ mboolem natt bu mu la teg dafa mel ni docteur bu la aay lekk sa wér-gu-yaram la bëgg sa jàmm la bëgg yàlla noonu la mel kon bul ko critique ku xamut du critique ki xam rawatina ki xam ba nga xamee ne du def lu may lu rafet rawatina ki xam ba mu ne ne dama laa yërëm ki la yërëm du la teg lu lay musibaal xewal rek la lay teg moo tax lu yàlla def nangul mm-hmm. loolu moo di moo di jàmm mm-hmm. dégg su ko defee kon borom bi subhanahu wa taala buur la boo xam ne bu mandula, la bu laaj li tax yàlla def nangam xikmatu boobu yow mënoo koo xam sa xam-xam dafa am fu mu yem ba nga xamee doomu aadama bëtam yi gis-gisam dafa am fu mu yem noppam yi dafa am fu mu yem dégg nga yaa kàttanam dafa am fu mu yem xam-xamam dafa am lu mën a xam ak lu mënul xam doomu aadama mënul daje lépp kon jëf ju yàlla jëf rek nga xam lu tax mu def lii loolu mënul nekk moom boo boo ko boo ko mënoon a nekk nga nekk yàlla kon waaw bu fekkoon ne lépp lu yàlla def yow xam mën nga koo pek su boobaa nga nekk yàlla waaye yow comme ko xamoo te moom na wóor na la moom lu mu def rek loolay jariñ loolay mbaax nangul rek iblis loolu ko alak yàlla ne ko sujjóotal aadama moom mu ne foofu du ko sujjóotal hmm? ba pare di critique naan lu tax yàlla def nga ak nangam ak nangam yàlla kenn dana ko wax lu tax déedéet parce que dañoo mënul xam li mu xam lépp waaye wóor nañu ne moom nee na du tooñ ku maandu la lu mu def rek teg na ko palaasam kon kay xam nañu lu mu def moo gën su ko defee ñu nangu dégg <clears throat> kon su ko defee yàlla du tooñ. benn jaam xadis bi xaraamal na tooñ ci mbooleem jaam yi comme nu ko nu ko yàlla aaya boppam yàlla du tooñ du tooñ moom wax na ko daf ko xaraamal ci jaam ndax tooñ lu bon la te dafay waral noonu ak bañante ci diggante jullit ñi ndax kat sa mbokkam jullit bu ñëwee di la tooñ di la tooñ bu yàggee mën naa am doo ko bëggati te yàlla dafa xaraamal bañante ak noonu ci suñu biir moo tax mu xaraamal tooñ pour ñu bëgg mën a nekk mbokk inna man innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum yàlla leen defar leen diggante mbokk bi ndax defar mbokk mooy tooñante di lorante loolu yàq mbokk la innahu laa yuflihu zalimuuna yàlla bëggut nee na kuy tooñ du texe xataa xéeféer bi sax amoo droit tooñ ko ndax yonentu daf ñoo jàngal ne xéeféer sax sa dëkkandoor la sa dëkkandoor am na ci wàq kon nit ñëpp dañoo bëgg ñu nekk ci jàmm su la yàlla ubbilee buntab tooñ xéeféer bi yow nga xéeféer bi it moom it ne moom it am na sañ-sañ tooñ la ndax yaa ngi koy tooñ bu yàggee yéen ñëpp kenn du nekk si jàmm moo tax yàlla waxul na yéen jullit ñi yéen yéen samay jaam xaraamal naa tooñ seen diggante bu leen tooñante xatta melentaan bi amoo dura tooñ ko romb rek rey mu dee wala mu màtt la nga rey moom dafa màtt yow loo ko def rey màtt rey lu ci gën a bon dafa laa matt bu ko rey def ko lu tolloo matt ci xaqam waaye mu matt la nga rey ko romb nit jël na muus tëj ko joxut ko mu lekk bàyyiwut ko mu far yàlla dugal ko safara ndax loolu caga ab caga laa wax gis na xaj bu mar mu tànqal ko ci dàllam may xaj bi ba mu naan yàlla jéggal ko ndax xaj woowu mu seral mm-hmm. kon tooñante yàlla daf ko xaraamal ci diggante jaam yi waxuñ diggante nit ñi rek sax yem ci waaye ba ci nit ak mala yàlla nee na bëggul ñu tooñante moo tax yéen samay jaam la wax dara génnul ci jaamu yàlla bul tooñ dara dara mindee foofu yàlla bul ko tooñ tooñ nag ñetti xaaj la dégg bi ci gën a bon mooy bokkaale yàlla mi bind nga xamale koo kañ bind yàlla miy joxe nga xamale kook kañ jox yàlla mi la bind nga bokk fa di jaamu koo xam ni moom dañ koo bind kooku mooy tooñ bi gën a mag xaq yàlla kenn du ko jox xaq mbindee fi ndax tooñ mooy nga teg mbir fu dul barabam jaamu yàlla rek lañ ko war def am na màggal goo xam ne yàlla rek ko yow yow nga jox ko mbindeef tooñ nga moo tax alquran ne inna shirka la zulmun azim bokkaale tooñ gu mag la tooñ goog di bokkaal na moom yàlla du ko jéggale bu mukk mukk mukk te ku koy def dee moom safara la jëm mm-hmm. bu tuubee nag balaa muy dee yàlla jéggal ko ndax yàlla dana jéggale bàkkaar yëpp ndem tuub nga ko balaa ngay dee waaye jaam bu dee ci bokkaale yàlla yàlla nañ ci yàlla musal alkuna mm-hmm. jeex na safara rek yàlla du ko baa loolu bu mukk bu mukk dégg mm-hmm. kon yàlla mi la bind ngir nga jaamu ko ngir nga teral ko nga jël jaam bi nga xam ne moom dañ koo bind lu mu xam yàlla ko ko jox jox ko ak yàlla ya di ko jaamu teg ko palaasu yàlla dëgg-dëgg tooñ nga tooñ nga tooñ nga de waaw su fekkoon nit ko tabax këram sax hmm, nga jël keneen def ko borom kër ga yow la war a jëflante borom kër ga yëpp nga di ko jëflante waajooju borom kër gi faale wu toppatoo ko sax tooñ nga xam nga am na doomu aadama yi sax doomu aadama sax la am na loo xam ni bëggul koo bokk ak moom lu tax moom muy bokk yàlla nguur yàllaam ji ndax kenn ku am soxna bëgg na ni ñu bokk ak moom soxnaam gis nga nu mu noonu la bokkaale yàlla ñaawee nag wala looloo raw sax bokkaale yàlla gën a raw foofu ndax am nga bëgg nga am sa alal ba pare ni kenn waaye ñëw ne maa yow ñëw bokk alal ji far foos dama si soppandiku nag see soppandiku ah bo mënoo loolu bëggoo loolu yow alal yàlla nga kon da nga war a bàyyi yàlla muy soppandiku ci yow waaye alal du soppandiku ci alal xam nga jaamam yàlla buy jaamu keneen ku dul yàlla xam nu mel mu mel ne yow nga am sa alal jënd sa jaam ah au lieu jaam bi di la liggéeyal moom bu xëyee muy liggéeyal keneen te yaa ko war a jox lekk jox ko naan yaa ko jënd yaa ko moom loolu jaarul te yàlla moom sax moom jëndul kenn dafa moom ñëpp far ni mu leen moomee moo gën a yàlla su ko defee bokkaale yàlla mooy tooñ wi gën a bon tooñam ñaar ba mooy def bakkaar bu mag hmm. wala sax bu ndaw yooyu tooñ la moom la alquran wa man yataadda hududallahi faqad zalama nafsahu ku jéggi frontière yàlla yi tooñ na boppam maanaam fa yàlla yàlla xemloo boo ko rombee rek tooñ nga tooñ googu nag bu ko jaam defee yàllaay xool bu neexee yàlla mu mbugal ko bu neexee yàlla mu jéggal ko yomal xiyaamati ndax bàkkaar rek bàkkaar moom yàlla mën na ko jéggal mën na ko mbugal yàlla na yàlla jéggal ni suñuy bàkkaar ñetteelu tooñ ba mooy tooñ nit ñi tooñ nit ñi moo xam nga jël seen alal comme noonu ma ko waxee woon nga tuur seeni deret wala nga mm, wax ci seeni der loo ci warul wax wala nga wàññi seen xaq gi nga xam ne dégg nga wala nga wàññi xaq gi nga xam ne nit ñi am nañ ko nga jël seeni xaq mm. loolu lépp tooñ la tooñ ci diggante nit ñi nag moom yàlla du ko neenal foofu fayu am ci foofu fayu am ci lu mooy nga dem ci ki ki nga tooñ ne ko baal ma mu baal la wala mu fayu mu fayu yonent bi sax da wax saxaaba bu ku mu def dara ne la aywa fayekul fayekul parce que jaam bu fayekut fii tamit yàlla fayeku dana fayeku yomal xiyaamati kon saa yoo tooñee mbindeef moom tooñ googu pour nga mucc ci faw mbindeef boobu baal la ko wala mu fay rek yomal xiyaamati su neexee yàlla nag yàlla ci mbaaxam man na laa fayal sa xaq yooyu nga yoreel mbindeef yi ci magasin yu yërmandeem moo tax yonent daan wax ne ko xamee nit xaq ko xamee mbokkam xaq moo xam ci deram la wala ci lu mu mën a doon na ko baalu tey balaa bis di ñëw bis boo xam ne dinaar amu fa dërëm amu fa dafa nekk rek mooy la nga jëw nit ñi la nga leen tooñ la nga leen dóor la nga leen naqar ba nga leen teg yàlla dafay jël sa lu baax li lu tooñ nit la nga leen tooñ ñu wàññi ko sa lu baax li fay ko ko yokk ko ci tiyaaba te foofu ku ne soxla na fa tiyaaba kenn bëggul ñu wàññi la ndax loo am ci tiyaaba foofu doyut su fekkee amoo tiyaaba ñu jël ci kooku yu ñaawam yi wàññil ko sànni la ko yow nga gën a am bàkkaar koo xam ne amul benn tiyaaba dëgg-dëgg la moom ci bàkkaar ku ko wàññil la solo waaye soxlul ku ko yokkal ndax bu yokkoo mbugal mi gën a tar yokkoo mbugal mi gën a gën su ko defee tooñ mbindeef moom yàlla yoonam nekku ci balaa mu la koo baal foo mu indee baal la ko moo tax borom xam-xam di wax ne tooñ jullit sax moo gën tooñ xéeféer ndax jullit boo tooñee ah su fekkee amoo tiyaabu boo ko fayee bakkaara lañuy la ñuy jël sotti la te bakkaar ab jullit moo gën a oyof bakkaar bu boo amee tiyaaba nag moom bakkaar sax du la laal sa tiyaaba la wàññi rek. waaye xéeféer boo ko tooñee bàkkaaram la ñuy jël sotti la ndax xéeféer kenn du ko jox tiyaab benn solution rek moo am mooy bàkkaaram yi lañ lay sotti bàkkaaram xéeféer na wóorut a gàddu ci benn côté yàlla tëkku na tëkku gu métti ñeel kuy tooñ yowmal qiyaamati wax ne moytu leen ragal leen tooñ moytu leen tooñ ndax tooñ ay lëndëm la yowmal qiyaamati day lëndëmal bàmmeel للمل سمبير يب يوم القيامة بويد جيجي عرس عندك لندم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فهنا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون تون كريد أن يقام فلن جمال لك ما نعم بقر لك رواتنا تون سوف وحنا نكجل سوف جامبر شيب تون يالله تكال لك دي جل سوف سوف lu toll noonu ba si juróom-ñaari suuf ba mu jeex ñu takkal la ko yow kese nga gàddu ko loolu attanoo ko kon tooñ di la am nga doole moytu ko baaxut yoroon si ne yàlla dana bàyyi tooñkat bi muy tooñ rek ba tooñ yu bëri mu yaakaar ne moo ci nekk waaye bis bu bëggalam yàlla ñëwee xalaat lépp léppam ba mel ni du moroom borom kàttan bi tooñ kon di la ëpp nga nit ñi doole xam nga doole tooñ sax bul tooñ wóorut ndax ñi ngay tooñ dañoo am borom bu la ëpp doole boo xam ne mu ngi teew mu ngi gis lépp te dafa xaraamal li ngay def te loo def dana la ko fay dégg su ko defee yàlla nee na xaraamal naa ci yéen tooñ mu yaa baat di yéen samay jaam kullukum yéen ñëpp daalun ñu réer ngeen illaa man hadaytuhu lu mooy koo xam ne maa ko juwal fastahduni sàkku leen ma jubal leen ahdikum danaa leen jubal yéen samay jaam yéen ñëpp réer lu mooy koo xam ne man maa ko jubal kan sàkku leen ma jubal leen danaa leen jubal looy déggee ci loolu mooy jaam yi kenn amul jàmm maanaam kenn gindeekuwut mm-hmm. moo tax bàkk wóorut yàlla rek moo xam ki jub mm-hmm. fala tuzakku anfusakum wa aalamu bi man ittaqa bu len sel sen bop yàlla mo xam ki ragal yàlla ragal yàlla dafa lendum lendum lendum jefe jefe jefe jefe jefe xam ba nit man na yaakaar li mu nek mooy ragal yàlla affaire baxna sax fexen fek nek nekk mo li gëna bon ba yàlla waxe ne alladina dalla sa'yuhum fil lxayaati dunya wa hum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunan mu wax aw xeet ne ñooy ñi nga xamne seen jëf yëpp sànk na ñom ñi nga yaakaar ñi ngi ci lu baax boobu la kenn waratul am jàmm hmm. da am yaakaar rek sa borom waaye ndem am na ñoo xam ne seen jëf yi dara baaxu ci pour ñoom mu ngi baax yow ku la bokkoo ci ñoom kenn xamut su ko defee it dafa dal dàq sellal kenn ne moom moo xam ki ragal yàlla kon bu kenn sellal kenn bu kenn sellal sa bopp fii mu ne yéen ñëpp réer lu mooy ku ma xaw xam ne man maa ko jubal moo tax yoonu njub yombut a xam de nit dana taxaw gën ci yàlla ne moom yoon moom nekk mooy njub réeral keneen bet mën na ko xalak dugal ko safar te fekk kooku moo jub moom jubut moo tax nañ jaamu suñu boroom te rafet njort hmm. njub du yaay bëgg nit ñu jub nga wax leen ñu jub déedéet wax yi ngay wax nit ñi jaamu yàlla rek lay yow yow sa diggante sa boroom rek ngay ngay ngay matal waaye mënoo jubal kenn ci sa wax yow yàlla mooy jubal ku ko neex waaye nag yonentu mën naa tegtal nit ñi yoonu njub borom xam mën naa tegtal nit ñi lam jàpp ne mooy yoonu njub yonentu moom fa la joxoñ foofu yoonu njub borom xam-xam nag la joxoñ foofu la jàpp ne mooy yoonu njub waaye mën naa sax du yoonu njub hmm? waaye foofu la jàpp na mooy yoonu njub mën na la koo mën na la koo joxañ waaye teg la si yoonu njub woowu nag ngay dox di dem kooku yàlla rek ko man yàlla rek moo ko man bu neexee yàlla ñu tegtal la yoon yi ba leer nañ ñi ba lenn loo ci mën a tegati sax waaye doo ko gëm rek mënoo ko weddi waaye gëwuma rek <laughs> subhanallah mooy tey xolu jaam bi nu ko neexee yàlla na yàlla jubal xam na solo xam solo goo xam ne nii moom jub kuy julli da ko ñaan saa yooy julli da jàng faatiha te faatiha rek ne ihdina siraatal yàlla yàlla nga ñu jubal ci la lépp nekk nag njariñu àddina ak alaaxira yëpp mu ngi ci njub mu ngi ci boo jubee doo manqué dara dégg soo jubee faw nga ragal yàlla boo ragalee yàlla yàlla nee na wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min xaysu laa yaxtasib ki ragal yàlla yàlla génne ko ci xat-xat bu mu mën a nekk yàlla dina ko ci génne te dana ko jox loo xam ne foogutoon ne moom dana ko am ci àddina ak ci àllaaxira ndax àllaaxira am na loo xam ne moom nit mosu foog ne nit da na foofu ndax bët mosu koo gis am na xewal yoo xam ne neex na neex goo xam ne moom alaxira bët mosu koo gis hmm. nopp mosu koo dégg mosul toq ci xolu jaam da nga ko fa fekk sa kanam gi naat lool nga rafet lool nekk ci xewal goo xam ne wóor na la naqar doon si toppati yi jar na jaamu yàlla bu sonn hmm. njub moo koy maye njub mooy maye loolu mucc ci safara njub koy maye ak mboolem jafe-jafe yi summa nunajji alladina taqaw ya nee na ñu ragal yàlla ñoom la musal ki ragal yàlla mooy ki jub dégg nga su ko defee mucc sa noon njub mo koy may buur ne wayn tasbiru wa tattaqu laa yadurukum kaydum shay'an bu ngeen muñe ta ragal yalla sen pexe dara hmm. kon ku pexe manal dara rek dafa jubut jubut moo tax pexe yi mën a dal ci kawam moo tax war nañoo xoolaat ba pexe yi saay saay yi mën a dal suñ kaw war nañoo xoolaat lu tax pexe saay saay yi mën a dal suñ kaw ñun jullit ñi tey njub gee manqué waaye bu ngeen muñee te ragal yàlla am njub gu mat sëkk laay durukum kay duum ci an seen pexe duñ leen mën a dara mujj gu rafet boo ko bëggee jubal wala aqibatu lil muttaqin aljana njuba koy maye wa jannatin ardu asamawaatu wal ardu uiddat lil nekk xaritu yàlla di waliyoom njuba koy maye in awliyaaw ilal muttaquuna yàlla nee na ay waliyoom moo ñu ko ragal amul lenn luy jaam di xalaat ci soxlay àdduna wala alaxira lu mooy mu ci njub gis nga ñu jub daal ci gàttal leneen yàlla wax mooy lahum maa a inda rabbihim ulaaika humul muttaquun mu ne ñooñu lahum maa yashaa'uuna lu leen soob yàlla may na leen ko ana nguur gu gën a màgg loolu koo xam ne léegi xalaatal rek loo bëgg yàlla jox la moo tax yonent am na ci jaam yi koo xam ne nii lum soxla yàlla def ko su dogoo ci yàlla yàlla def loolu nag njub moo koy maye moo tax lépp mu ngi ci njub xadis bi nag jàngal nañu ne mbindeef yëpp réer amul benn mbindeef bu ma xam yoonu njub ci pexey xam ndax yoonu njub dafa sew wallaay dafa sew léeg-léegi am loo xam ne da koy ŋàññ ci sa bët yi bon lu ko te fekk loolu moom muy dëgg-dëgg njub hmm. mais yàlla muur na la ko bu demee ba yonent yàlla bu mel ni Moussa mën jàkkaarloo xadr hmm. xadr di def muy critique te lay xadr def muy njub moo ne wal na yoonu njub dafa sew nga <coughs> def attention baax xadraa ngi def Moussa ngi critique rek te wallaay loolu li xadar def mooy njub ci yàlla nit mënul xamal boppam yoonu njub mënul xam yoonu aljana ak lum am am am xel ak lum muus muus muus yàlla rek moo lay dimbale yow jaam bi jubal la may la sens ku yàlla mayut sens nag loo jàng boo jàngee sax sa njàng mi moo lay réeral allahu akbar wa adallahu llah sa xam-xam sax daf lay réeral nga am alal alal ji réeral la yàlla yàlla bu bëggee xalak nit la nga xam ni mooy moyen pour mu war a jub loolu moo koy xalak xool alquran rek benn laa yàlla neen yu dillu bii kasiran wa yahdi bii kasiran xanaa kay laa ji kay jubal la def waaye benn laa yàlla na si laa ji si laa réeralee ñu bari si laa jubalee ñu bari ci benn wax gis nga lislaam gii am na ñoo xam ni si lañu réeree far te lislaam pour jubaloo ko tax a jug comme ni nga xamee ne alxuraan hudan li naas njub la ñeel ñi mais am na ñu muy réeral ñi nga xam ne yàlla namul si ñoom njub lislaam it noonu de am na ñoo xam ne ci lislaam gii ñu jàpp réere ci kéeféer de ndax ñoo gëm nañu yàlla ak yonentoom mais ci biir lislaam dana yàlla réerale ñu déggee texte yi nuñ ko warul déggee firee xadis yi nuñ ko warul firee jàppee njub lu bokkut ak lu lislaam jàppee njub ñu xal ko jàpp jàpp ne jàpp ne texe nañ njub yombut de sa njub bàkku ba gaaw na teel na bàkku teel na lu may ba nga gisee sa bopp yaa ngi daggu ci aljana nga xam ne li nga nekkoon loolu lu gërëm loo yàlla la mm-hmm. waaye fii bàkku teel na ak koo mën a doon kaa ina man kaana bul naw sa bopp parce que benn jaam nga ci jaamu yàlla yi bu la sa xam-xam bi yéem xam-xam boobu ba mu la yéemee nga jàpp yow li nga xalaat njub rek la keneen mooy ndëngate boobu nga réer far nga réer njub njubam yàlla la yàlla léeg-léegi mën naa may ab wëli karaama sax xam nga karaama dafa war a yokk nit njub Jamu ya ba yàlla may la karaama def la ngay xaritam mais karaama googu moo koy réeral karaama ga nga xam ne pour pour jubalaate moo ko taxoon a jub dana réeral ya balaa am ibnu baaxoraa looloo ko sant yàlla may na ko nangu ñaan lu mu ñaan yàlla nangu ko ci nangu ñaan googu ci la ya yonent yàlla Moussa ya xalak ko mu ñaanal yonent yàlla ya Moussa lu bon yàlla ya xalak ko ci gi ko yalla defal digeentem ak mom loolu ci la alko am na ñoo xam ne si wërsëg àdduna la ñu alko yàlla ubbil leen ko rek ñu bew am na ñoo xam ne ci xam-xam la ñu jël seen xam-xam bi def ñu lu di ci xas jaamu yi rek wala yàlla bu gis rek xas ko ci ne ne dafa ci nangam la nekk bidaa la nekk nangam nangam dajale seen i taxi yu su ko defee ba yàqu yàlla dimbale wan ñu yoonu njub waaye nag lenn laa lay laay biir hmm. su fekkee yaa ngi déglu mooy soo gisee ab wëllu yàlla boo xam ne nii gis nga ko mu nekk jaamukatu yàlla hmm. tabaxi jumaa hmm. di boroomi xam-xam taalifi téere doon dajeeg boroom xam-xam yi nekk nit ku yéeme ku sell yàlla may ko mu liggéey ci lislaam loo xam ne yow ak say maam yëpp bu ngeen daje woon mu leen koo liggéey mboolem ñu ñu koy ñu koy nangam sax mënu ñoo liggéey lu toll noonu nga gis xam-xamam gis téere mi gis jàkka jumaa mi gis njabootam gi ba pare nga xool gis taalibe yi ko wër di ay boromi xam-xam boo comprendre dara ci ay mbiram defal nànk defal nank wax yow mënoo gën a gindeeku ñoo ñépp defal nànk ci ay mbiram boo comprendre dara ci ay ci mbiru waa jooju wala yàlla bu mel noonu defal nànk wulli yàlla bu dëgg yàlla dëgëralee ay karaama yàlla jox ko xam-xam yàlla jox ko wilaayatu nit ñi topp ko te nit ñi ko topp kan nekkuñ ay juhala ñu réer ay sufaha ay boromi xam-xam lañ hmm. yu xam fu ñuy teg seen tànk te duñ te duñ parparloo duñ duñ de jaay kenn ndax seen mbir seen alaxira seen diggante ak seen borom rek la buñ ñoom ñëpp àndee dëggal kooku yow boo comprendre loolu dafa nànk ndax njub dafa sew loolu laay laay biir waaye waaye nit ku ku ku dëng dëng moom yàlla ñaareel yow mën ne ko feeñal li nëbbu mooy njub njub mu ko def attention yi dafa baax yàlla nee na ku yàlla jubal koo koy ki jub waaye ku yàlla réeral falan tajida lahum awliya min duni amul ñenn ñu ko mën a dimbale ku dul yàlla réer na rek ak kum mën a doon loolu daf lay jàng daf lay wan ne du jàng mu bari mi du wird yu bari yi du dara mooy juwal nit ku yàlla xas réeral amul tuut koo ko mën a génne ci kaw suuf réer na moo tax sag julli dana ñaan yàlla ihdina siraatal mustaqim lu bëri yonent bi daf ko doon ñaan yàlla ne allahumma inni asaluka al huda wa tuqaa wal afaafa wal ginaa yàlla maa ngi lay ñaan njub ak ragal yàlla ak fegu ak koom day ko ñaan yàlla dégg su ko defee nag njub gii ñuy wax mooy li yàlla bindee doomu aadama kookoo jëfe xam nga ñëpp dañu yaakaar ne jaamu yàlla këpp julli xoor joxe asaka mooy njub loolu yoonu njub la hmm. <laughs> yaa may déggam seetlu li ma lay wax bu baax a baax loolu yoonu njub la waaye gindeeku dëgg dëgg dëgg mooy nga xegg ci li nga xam ne ni moom la la yàlla bindee mooy fitratu bi nekk ci yow yonentu nee na képp ku juddu dafay juddu ci fitratul islaam mais xale boobu juddu ci fitratul islaam julliwut xoorut joxewut asaka ajul màkka tuddul ñaari baatu seede yi waaye la xale ba nekk di ko yëg di ko dund loolu mooy fitratul islaam loolu mooy njub piir bu yoree beneen jikko wala beneen yéeg yëg bu dul loolu rek waajur yaa ko def ci moom comme ni ngay fekkee ndox mu set taqoog barab bu tilim ba tilim moom ndox ma te dara duggut ca noonu lay nit di sellee waaye taqoog ay nit ñu tilim ci bakkaar ak ci bëgg àdduna ba far tilim moom la xale boobu nekk loolu moo di njub sharia yoonu njub la njub googu ba nga ko fàttee ci la la yàlla nag ndil ay santaane ki tere pour nga delluwaat ci njub googu su ko defee bu fekkee yonent war na ne ku juddu rek ci njub googu la judd mooy fitratul islam pire bu dee nasaraan mooy ñaari waajuram ñoo ko def bu dee yahut ñaari waajuram la bu dee majus ñaari waajuram la pourtant affaire du ñaari waajur rek waaye ñoom ñooy responsabilité bi gën a mag pour yar xale bi ak xam fu muy dem ak muy dugg kon lu ko dal ñoom ñu ngi si hmm? hmm. ndax ndax sàggan nañ tuuti rek léegi nag fu ko defee loolu moo di njub lii santaane la tudd sharia la tudd sharia mooy lan yoon mos ngaa gis yoon wu jëmul fenn yoon la ci yàlla la jëm jege yàlla mooy njub moo tax yonent bi jàngal nañu ci ba ne sama jam bi lo wut ma li gën li ma farataal ci moom farata yi sax ba koy def yaakaar ne yow aljana moo tax moo ko tax a jug daf laa jàngal ne farata yi pour kon kon yon la walay delloo sa borom wa ahdiyaka ila rabbika fa taxsha Musa la Moussa waxoon firaw na ma jubal la la sa borom ndax nga mën a ragal yàlla lii lii boo xoolee sharia yoon lay firi sunna yoon rek lay firi yonantu daf laa yoon rek wu lay delloo waat sa cosaan su ko defee nag yow nga fekk ku dellu si cosaanam nga ne kii dafa réer te yow yow lan mooy njub nga ne nekk si yoon wi di dem rek loolu mooy njub te yeggoo fenn loolu njub de moo tax njuba sew njub ko sew sew nit dana jaar ci yoon ba yaakaar ne yoon waa ko tax a jug fekk fa ko yoon wi jëmale moo ko tax a jug nit dana nekk ci àdduna ba yaakaar ne àddunaa ko tax a jug te xamul ne àdduna barabu tukkikaay la pour àllaaxira mais àllaaxira barabu tukkikaay la pour dellu ci yàlla àdduna yi dellu ci yàlla ko tax a jug inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun ñëpp yàlla ñu moom te ci moom la ñuy dellu لو نقول بريت القرآن kon su ko defee yow jaam kenn attanul la lu mooy sa borom soxloo lenn lu mooy sa borom boobu waroo yaakaar kenn lu mooy sa borom boobu waroo yittewoo lenn lu mooy sa borom boobu sa xol bi waroo cee dugal lenn di ko bëgg lu mooy sa borom boobu ndax ku dul moom sifru la sero mënu dara mënu dara fexeel nag ni ngay xiiree ci àddina nga xiir ko ci jege sa borom boobu nga xiir ko ci xam kan mooy sa borom boobu xanaa loo bëgg kay da ko jéem a sax waaye nga ne bëgg nga yàlla mosoo yittoo jéem a xam yàlla yàlla kan la Moussa bu mu bëggee yàlla def na ko yàlla may moom a gis la ab yonent lu xaraam lu toq ci xol bi ba mukk bu doon loolu dafa jomb Moussa du ko ñaan yàlla ndax ak réer la te réer jomb na ci yonent mën naa nekk waaye moom maqaama ba mu ko soxla woon mënu nekk mooy def ko doon ñaan gis ko ci maqaama ba ko yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi seede yàlla na ko la ko jox loolu la Moussa yàgg naa bébét alalu yonent bi waaye yàlla dafay bañ mu na ne ko yàlla gis naa xeet woo xam ne dañuy mokkal seen téere yi mu nekk ko loolu jox naa ko xeetu Ahmad gis naa ñoo xam ni seen sarax yi dañ koy lekk mu jox defal ko ba banu Israayil mu ne ko jox naa ko xeet Ahmad gis naa ñoo xam ne ni dégg nga seen téere yi dañ koy mokkal seen dënd yi naa ko xeet Ahmad mu Musaa ne ko yàlla léegi jëlal seen nubuwati nga boole ma si xeetu Ahmad léegi <laughs> waaye xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen mbir yittoo yàlla la war a doon itu ya Allah. Innal huda hudallah wa rizqu rabbika khairun wa abqa. wërsëg adna yeb zara yàlla wërsëgal la yàlla loolay wërsëg bi gën te mooy loo xam ne boo ko amee dootoo ko ñàkkati ba mukk mais lu dul yàlla soo ko amee bis ñew nga ñak ko wat mais yalla rek nga mëna am dootoo ko ñàkk ci biir laa yawmi diin moo tax kuy wut njub wutal yàlla bis boo ko amee dajeeg jëmmi njub mooy inna rabbi ala siraatin mustaqim yàlla mu si yoonu njub bi boo xawee si yoonu njub rek bu yàggee nga dajeeg moom boo xawee si yoonu njub bi te moom xawoo fa moo tax confirmation buy wane ki jub naam jubut mooy mu ne imaan lépp mooy yaqin lu la wóor ci yàlla yow nag ndem xamagoo lu la wóor ci yàlla rek xamal ne ba léegi yaa ngi ci yoon wi waaye yegg ko ndax inna rabbi ala siraatin mustaqim loolu la xadis bu wax taaraf mu moom nu mu tuddati sax nee naa dégg nga jaamu yàlla tajiru da nga ko fekk amaama ko sa kanam dégg nga soo jaamoo sa borom rek fekk ko sa kanam mooy fekk ko sa kanam mën naa nekk fii ci àdduna mën naa nekk ci àllaaxira ndax yàlla saa yu ko neex lay daggal jaamam bi kiiraay waaye daal kiiraay bu dëggee looloo njub dégg yal nañu yàlla wërsëgal wërsëgal njub ku judd nag na ne ci réer la judd bu jubee ba xam yoonu njub yàlla ko xamal yàlla wax na walla axrajakum min butuuni ummahaatikum laa taalamuuna shay'an yàlla moo leen génne seen biiru yaay te leen dara kon ku juddu da réer dégg waaye boo jubee ba xam ne lii mooy yoonu njub sante ko yàlla yàlla la ko defal waaye du sa pexe yàlla ñu yàlla jubal allahumma hadina siraatal mustaqim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 njub gu njëkk gi mooy bàyyi kéeféer taxoog lislaam kooku jub nga jub tegu ci yoon wi moom la yonent di wax ne maa ngi gën ci yàlla yàlla jubal kenn ci yow yàlla jubalee benn nit ci yow moo ci biiram ñaareel ba mooy njub xaas njub xaas mooy lan mooy yàlla dimbal la ba nga mën a def farata yi di mën a def naafare yi di bàyyi yu xaraam yi di bàyyi yuñ sib yi yooyu boo ci nekkee yàlla may la njubak xaasatu xaas xasatu xaasatu mooy lan mooy nga dem ba sa xol bi loolu yàlla mënatu cee toq ñi nga xam ne ni ñooy xaas ñoom la yàlla wax ci alquran wallazina jaahadu fiina ñuy jihaat ci ñun di topp ndigal yi di bàyyi tere yi di xeex ak seen bakkan yi ñoom ñu ngi jihaat ak bakkan jihaat ak bakkan xam nga la yóbbu ci shahid shahid googu xam nga mooy lan mooy seede nga bokk nga yegg ci maqaamu aarifin jaase daf la yóbbu ci shahid goo xam daf la yóbbu ci maqaamu ñu aljana mm. waaye nag jihaat ak bakkan dafay rey sa bakkan bi su reyee sa bakkan bi doo gisati sa bopp yàlla rek ngay gis soo boobaa nga yegg ci yegg ci maqaama aarifine yi seen yoon yu ñuy sóobu yëpp muy xam yàlla yàlla daa la ko wan moom la yàlla wax ne walladina jaadu fii nga ba pare yàlla awal la yoon yi nga war a jaar ba am ixsaan soo amee ixsaan nag kooku yàllaay ànd ak yow saa su nekk mooy wa inna laa ala muhsinin yalla nga ànd ak ñu rafetal kon da nga jihaat xeexal sa bakkan def farata yi yalla wan la yoon yi yoon yi nga wara jaar ba yegg sa borom bi moy la nax di num subulana bu la yoni, wanee yoon wi bu yagge nga am ihsan ci yalla bëgg la nek la su yalla bëgge bëggee duusul nga and ak yow wala alquran neexut yombut tudeg njub da ngay jihaat si def farata yi ak naafile yàlla wala subul yi yoon yi muy yoon yi naafile yi nga xam ne nee boo si jàppee mu bëgg la boo si jàppee nag bu yàggee yàlla bëgg la bu la bëggee rek nekk la maanaam évancé la nga yëg nekk ak dëgg gi su boobaa da nga xam ne yàlla ngi ànd ak yow saa su nekk ndax ñooñu ñooy moxsini yi moxsini mooy ñi nga xam ne xegg nañ ci maqaamu ihsaan ba yonent wax ne mooy saa su nekk rek booy jaamu yàlla. na nga yore xaalu comme kuy gis yàlla kuy gis yàlla wax naa ne foo mu fàtte boppam fàtte mbindeef yëpp yàlla rek la mën a seede ñooñu ñooy mox si nii nii yàlla nee na ñooñu nag la ànd ak xool affaire bi nu mu jefe kii jihaad na def na farati ak naafila yi am na aljana waaye des na yàlla wan ko yoon wa danaa di yónnoom subulu naa waxut sabil de subul mooy dog ya yi nga xam ne dara wutee sa wutee wuteeg sunna yonent bi ak alxuraan nga nekk ca jàpp askar tarbiya ak jaamu yàlla yi nekk ci nekk ci nekk ci nekk ba yàlla bëgg la ba yàlla bëgg rek nga bokk ci way mos si nga xam ne fàtte nañ seen bopp ndax seede taar yàlla yi jiw googu yàlla ñu ko yàlla wërsëg kon njub bi gën mooy fexe ba wuteeg sa bànneexu bakkan waaye fexe ba delloo sa bopp sa borom dégg pour nga yegg ci njub gii ma lay junj nag faw nga jàpp si siraatul mustaqim sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax wasila yi la mën a yeggale si njub ñetti wasila la jaami yëpp yàlla soxlu si ñoom lu mooy ñu dellu ci yàlla moo tax mu ne man dallaka ala llaahi man dallaka ala nafsika faqad garraka ومن دلك على العمل فقد أتعبك ومن دلك على الله فقد نصحك كل لا كل تكتل سبب ولا بوك بوبم من دلك على نفسي كل تكتل بوبم نحن را نحن نراجع رجف لجامم كل تكتل سبب نحن را كل تكتل تجف جبري رك سنال نرا واي كل تكتل يا الله كوك ولا لا يبير نجيب جيك ما يتوب سنة يلنتي بسلا رسالة كان بيجيب مكتة فوق مم لا يالله جواح قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله سوين بقى يالله توب لين ممن يرنتي بي وخو توب لين يالله توب لين ممن يرنتي بي مم موي توب يالله نين مم لن يتوب ده مم موي جيلي سيالة نان ني نيرا نيو يدف كون مم موي جيلي سيالة نين سي مم لن يجري توب سنو يرنتي سي واحد يف دفكو yonent bi wax na ne eh, wala boog benn eh, nit ku baax wax na ne bokk na ci xéwal yi yàlla defal jaam mooy mu dimbali ko mu mu mu mu nekk ak koo xam ne dafay topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko ci ñaax gannaaw topp sunna yonent bi yàlla nee na demal ci awraad yi mooy la ma la waxoon la naa di noonu subul naa wala dina jaahadu fii naa jihaad bi ak jaamu yàlla yi def farteeg naafile yi mooy topp sunna gannaaw ga nag yalla ya jubal la ci yoon yi moo tax ne wasbir nafsaka ma alladina yaduuna rabbahum ghadati wal ashi yuriduna wajahu yonent bi yalla waxtu yonent bi ñu lay wax na nga muñ ba and ak mbooloo mo xamne suba ak ngoon ñi ngay tuddu seen borom te bëgguñ lu muy jëm ja nag wutuñu aljana de yuriduna wajahu gis nga mbooloo mom bu len fa bàyyi ngir oto yi nga gis ngir kër yi nga gis ngir xaalis bañ lay fay weer wu nekk ngir école lañ lay tabaxal ngay xaste mbooloo moom bu leen fa bàyyi mbooloo ma nga xam ne ni suba ñu ngay tudd yàlla ngoon ñu ngay tudd yàlla bëgguñ lu may jëmm yàlla ci hmm. kooku mooy wasiila ñaareel bi yàlla nee na àndal ak ñooñu bu àdduna tax nga bàyyi leen bul topp koo xam ne ni xolom dafa sàggan ci tudd yàlla ndax xol ba leneen la ci nekk àdduna lay yëg bànneex àdduna lay yëg noflaay lay yëg nguur gi lay yéeg moo gën a bëgg daraja gën a añaan ñëpp gën a yëkkati boppam kooku kooku xam nga ne xol ba yàlla nekkatut fa demal seeti koo xam ni xol ba daf lay fàttaloo bànneexi àddina ak li ci biiram bal dana la fàttaloo bànneexu aljana bànneexu aljana sax yow yëgatoo ko ndax bànneexu yàlla bi ngay teewlu loolu boo xamee yàlla nag noonu lay mel alquran juñu na la fofu ba leral la sax kon gannaaw ga dafa nga japp ci dogi. ñettel ba moy wa tabi sabila man anaba ilayya mune topul yonu yoonu ku kudialu ci man ku delu ci moy arif aarif ila ilallaahi marjiukum jamian xanaa bo delo ci yalla kay yegne da nga wara yeg yalla ay delu ci yalla ba leg yegoko yalla nak yow mi dundu la wax ne topal yoonu ku delu ci yoonu tu jangal ne nit ku nek ka muy ànd ak rek la yore diineem boo toppee yoonu ku dellu ci yàlla su ko defee yow nga dellu ci yàlla amma yoon woo topp woo xam ne jëmalewul la sa borom ci leneen la la jëmale nax na la téemal xiyaamat ci yéen ñaa ñëpp xuloo rek ngeen ci kanam yàlla xuloo topp yoonu ku dellu ci yàlla mooy wasila bi gën a mag soo ko defee rek am ixsaan soo amee ixsaan njub ga ñuy wax danañ si am yaqin danaan waaye ndekete nii la nii la woon parce que lii lañ la cuubee woon nit ñi rek ñoo la sànkoon gëm loola enregistré sa bopp bi yeneen yoo xam ni yëpp dara du ci dëkk ay neen rek yàlla naka la yàlla waxee ci alquran ba tey ne zalika bi an laa wa alxaq yàlla rek mooy dëgg ji sax lu dul moom neen la ngeen topp neen ba mu leen ba mu fàttaloo leen yàlla naka la lay neen di la mën a fàttaloo yàlla naka lay neen di mën a nëbbee dëgg sëñ bi bu fekkee yàlla rek mooy dëgg lu dul moom neen la te yonentu wax na ko nee baat bi gën bu waykat ma sa wax mooy la labiit mooy ala kulli shay'in ma xalallaaha baatilun lépp lu dul yàlla neen la yow nga mën a fexe ba di gis neen rek guddeeg bëccëg subaa ngoon ñu ne la yàlla kese nga ne du dëgg nga xoolaat sa bopp de sa réer gi tat na يوم دم بنين من لا هير دق سرير قتتنا أتوني النبي صلى الله عليه وسلم كن دمهم يا جنا جنجل نب وحناك اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ولا أنت الباطن فليس دونك شيء يا الله يانجك درنج كله loolu kenn du ci werante ak yaa mujj dara nekkut sa gannaaw loolu nag ba léegi nit ñi déggaguñ ko yonentu waxu ko nag bu fi nit ñi jógee des de dafa ne ko yaa mujj yow yàlla dara nekkut sa gannaaw yaafeeñ feeñ dara nëbbul farewul la kaw ndax lu nekk la ko faree kaw moo ko mën a nëbb yàlla yaay li nëbbu dara génnul la yonentu moom wax na dëgg moom sallallahu kon doomu aadama na jéem a gëm yàlla topp yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam di julli di jàng alquran di jëfandikoo sharia dégg nga di jëfee xam-xamam loolu mën na koo dimbale ah, ba mu mën a jub tey seetlu nag tey seetlu bu baax laay bañ a nekk boroom xel mu way mu dof moo xam ne nii mm, dégg nga du dégg alquran yàlla daf ñoo afalaa yatadabbaruuna alquran man wax du ngeen sitantal alquran tey taqoog ñi nga xam ne yàlla rek lañ lay joxañ ndax ku lay joxañ ku borom bi la bind boobu bokkut ak koo xam ne daf lay joxañ loo xam ne nii ak jaam la su ko defee su ko defee loolu moo di njub yàlla nee na yéen samay jaam yéen ñëpp da ngeen a lu mooy koo xam ni maa ko jubal dafa hadis bi dafa xaw a gudd foofu beneen yoon ñu mottali ko in uridu al islam astantu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa rahmatullahi